waxtu wi jot nañu dellooti buum ca mboy mboy gaamati mbégteeg ca waxte bu baax a baax di ci feggoog yéen xibaaru bés bi file ci Senweb TV lu ci gën a fës bokk na ci rek euh, ba mu jagleel njiit réew mi Macky Sall bokk ci rek laaj ya mu koy laaj euh, si rek euh, lu tolloog rek koppar gu tàkk goo xamante ne daanaka huit milliards suñuy koppar la ya mu jox ki la di Marine Le Pen li ni mel nag yóbbee ko daal mu fas yéene jàmmarloog yoon moom moomii sax daal dinañ koy xëy daal di koy convoqué la ca tukkee yëpp dinañ leen ko dal di dégtal activiste yi bàyyiwuñu benn yoon tey jëlee sax ci alxames gi juróom-ñeenti fan ci weeru mars bu 15 heures jotee ab délégation nga mouvement Africa First Sénégal notre priorité ak FRAPP député bi la di Guy Marius Sagna daal di leen di jiite danañu dem déposé ji rek ci ambassade bu Tunisie fii ci Sénégal ab bataaxalu protestation jëmale ci wàllum boddi xeet gu Tunisie teg africain yu ñuul ya naka noonu nag sa seen communiqué ga ñu ci jot a biral lañ ca xam leen ko dal di faram Pape Massata Diack eh, di doom ex patron athlétisme mondial gile di Lamine Diack eh, daal dina ñuy rek àdduwaat ci mbiram tey jile eh, ci alxames gi cour d'appel bu Paris bu ñu ko nag attewaatoon ngir corruption ci scandale mondialu dopage russe bi war na nag annoncé li nga xamante ne ni moom moo di décision woom ah, mbir mi wutale Ousmane Sonko ak Adji Sarr dañu ca addu Ousmane Sonko déposé na ab pourvoi en cassation contre nag réewu rek chambre d'accusation bu cour mu àndul euh, ci renvoi wam bi ca kanamu chambre criminelle ngir viol ak menace de mort jëmale ci soxna si Adji Sarr lañ doon xaarandi lañ doon laajandi nag mooy ba xam ndax rek euh, saisir gi ñu saisir cour suprême dana doon rendre possible euh, programmation procès bi am déet daal nañ ci am ab tontu bu ñu leen fas yéene dégtal mu impliqué ci mbirum mandi ba noppi di dawal tax ñu présenté ko procureur de la république après le tribunal de Dakar Mouhamadou Papis Diaw di ab taskatu xabaar bu fekk mbaax ca rek diwaanu TFM ay xibaar yu bees tukkee na ci mbirum arrestation boobee xibaar bi la nag mënees nañoo ne xibaar bu neex la ci moom ak ay jegeñaaleem ila njabootam daanaka benn ay bës ba leaderu gëm sa bopp bi nekkee daal di lancer ab alerte ci ab supposé scandale bu impliqué ministre des transports dile di Mansour Faye li ni mel nag Bougane Gueye fas yéene see génn indi ay yaatal ya nga xamante ne nii tax na mu jox ci eh, dig daje ñi nga xamante ne nii ñoo di eh, taskatu bu xibaar yi mu amal tukki nemmeeku fii la ci Sénégal njiital Assemblée nationale bu Québec eh, di Nathalie Roy daal dinay gisee ak Ami Ndiaye parlementaire groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar di tamit meeru ñibbi tey ci alxames gi ci suba seen gise googee nag kile nag di rek njiital Assemblée nationale bu Québec la mu jot rek faslanteeg Ami Ndiaye ñibbi lépp dinañ leen ko daal di dégtal laata ñu ci tof toftal xibaaru tàggat yaram bu ñu koy ndar képpee comme nañu ko baaxoo di defee mbokk yi tënk yaa ngoog ngeen taaxirlu rek ne tuut gannaaw bàkk bi ma dikkaat daal di koy faram-fàccee mu nga bàkk ba jib na nuyu leen bu baax a baax yi ñu ñuy teewlu waxtu le temb ci Seneweb ba TV ngir taataan seen i ay xibaar yu weex te wër nañu ko diggee la ñu koy dal di defee jëwriñu Serigne Moustapha bi ca Sébikotane si ndigalu xalifa général des Mourides daal dinay dëjjati ña nga xamante ne ni ñoo yoroon ay cantine ak yeneen i ca buntub jumaa ja nekk foofee ca seen gox wa waaye nag benn jaaykat képp moom moo fa desandi woon condition sociale am taxoon na sax jëwriñ Baye Gora jotoon ko rek jëndal ab bâche waaye nag ngir bañ a def si discrimination millions da koo jox ab app ngir daal mu mën a wuutale eh, wuutaale feneen fa eh, a amalee njaayam mile ay indiscrétion nag daal di koy eh, xamal ni xamal ni jëwrinu Serigne Touba bi ca Sébikotane daa jël décision daal di taal bagage am yi ca ba fa bu fa jógee koowul naka noonee nag la situation ba jëlee beneen tournure ak benn appel téléphone bu jëwrin Baye Gora jot ci samedi gi si jokkoo téléphone boobee ab waay bu ne daal doomu Serigne Mountakha Mountakha da si doon rek tokku kile di paa di koy reproché ne dafa am attitude attitude bu radical ak soxna si si noonee nag la waa ji ànd ak xadar daal di jéem sax weddi sax ne mosula jël boobu les décision famille am nag bu situation bi laal tamit ñoo ngi woon ci seen état yëpp numéro privé ba mu doon jëfandikoo dañu ko identifié ci rek ne moom mooy SS Niang li ni sax daal di ne rek tax ñu convoqué ko ca gendarmerie bu Sébikotane doom bu jigéenu représentant wu xalif bi nag ba ko interpellé ci li daal dinay woo fidèles yi ngir ñu gën a prudent wax ndaxte rek am na ay malintentionné ñoo xamante ne ni ñu ngi làkku ce gannaaw famille yu diine gi ngir rek buntu xatal askan wi ancien premier ministre bi la di Hadjibou Soumaré daal dinañu koy wóolu tey jële ci alxames gi ba fukki waxtu jotee ci suba ca sûreté urbaine ci ab lettre ouverte bu mu xaatim nag jagleel ko njiitu réew mi Macky Sall daf see leerlu la rek ne ndax ba xam ndax njiitu réew mi Macky Sall dafay dafa yëkki lu tolloog fukk ak ñaari million euro di daanaka juróom-ñaar juróom-ñaari rek milliards yu teg si suñuy koppar may ko kile di Marine Le Pen mbettaange la yëggee convocation nga monsieur Hadjibou Soumaré ba ca ancien sécurité urbaine euh, ci démocratie euh, citoyen mën na interpeller ay dirigeant wam ci ab lettre ouverte ci ay laaj yoo xamante ne ni intérêt réew mi la ba tax na daal euh, mënuñoo rek nangu indiwuñ ci rek tontu ba noppi di ci jéem a dugal wàllum yoon li ni mel Khalifa Ababacar Sall moo ko xamle ca benn note ancien maire bi nag daal dina yéen nag condamné fermement li lee mu dippee tentative de musulman tey nag apporter soutien wam kii lee di monsieur Cheikh Hadjibou Soumaré activiste yi bàyyiwuñu comme ni ma leen ko diggee woon ci euh, rek euh, bopp xibaar yi tey jile ci alxames gi juróom-ñeenti fan ci weeru mars bu 15 heures jotee ab délégation nga mouvement Africa First Sénégal notre priorité ak FRAPP député bi la di Guy Marius Sagna fas yéene leen jiite dinañ dem déposé ji ci ambassade bu Tunisie file ci Sénégal ab bataaxalu protestation jëmale euh, ci wàllum boddi xeet gu Tunisie teg africain yu ñuul ya li ni mel nag député bi di activiste ñu naan ko Guy moo ko dal di xamle moom ak fukk ak juróom ñooñom sax yu nekk FRAPP ak Africa First ci fàttali dañu leen tegoon loxo samedi bi la ñu weesu yemoo ak juróomi fan ci weeru mars ba noppi tey leen ca commissariat central bu Ndakaaru ca ëllëg sa sax la ñu leen mujjee woon a libéré ñoom ñoo ñi nag dañoo demoon ci ambassade bu Tunisie fii la si Ndakaaru ngir déposer ab bataaxalu protestation jëmale ci kàddu yu irresponsable yu raciste yi nga xamante ne nii njiital réewu Tunisie moo ko yëkki jëmale ci africain yu ñuul ya nga xamante ne nii ñoo nekk foofee ca seen ab réew gannaaw coow li nga xamante ne nii euh, rek euh, daal dina euh, juddu ci kàddu ya mu yëkki jëmale ci africain subsaharien yi moom moomee di njiital réewum Tunisie di Kais Saïed daal dina défendre boppam démb ci àllarba gi ci bépp rek racisme jëmale ci africain subsaharien yi lu tolloog ñaar fukk ak benn fan ci février nag monsieur Saïed daa waxoon ne daal immigré clandestin yu jógee ko Afrique subsaharienne ñoo fa sabab violence beeg wàllum crime gi visé soppi composition réew ma gannaaw discours am boobee nag ne monsieur Saïda daal dinay xamle si ab giseek njiital réewub Guinée Bissau di nag Umaro Sissoko Ambalo bu defoon escale ca Tunis ne daal africain yu nekk Tunisie ay frère lañu woon bu ñu sukkandikoo nag ci ab vidéo bu présidence tunisienne bi daal di biral naka noonee a ne discours am boobee nag la ko taxoon a jóg mooy respecté loo daal légalité tunisienne gi ñeel étranger yi ba noppi empêché bépp juridiction bu parallèle a interpellé a interprété discours am bi euh, ci beneen anam ngir nuyu euh, Tunisie africain la euh, te fier na doon ko mu xam le ko moom monsieur Ambalo mu ne daal kon nañu interprété discours njiital réew Tunisie bi baaxul. Pape Massata Diack doomu ex patron athlétisme mondial bile di Lamine Diack tey ci alxames gi la ñuy addu ci mbiram cour d'appel bu Paris bu ñu ko atte woon waatoon nag ngir corruption ci scandale mondial dopage russe bi war na annoncé nag décision boobu ancien consultant marketing IAAF bi nag ñoo ngi ko condamné woon weeru septembre atub 2020 juróomi atub kaso lëmb ak alamaan un million euro ngir complicité ci biir ab système pot de vin lu ko tax jog jóg doon nag di ay cas wu dopage euh, sanguin ci ay sportif russe atub 2011 at la at nag laata ñuy amal euh, jeux olympiques yu Londres ba muy nag euh, traîner procédure sanction yi jëmale ci athlète yooyee am passeport biologique suspect IAAF dafa daal di permettre ñenn si ñoom ñu daal di participer ca boobule po ba tey ngeen di tatan xibaaru bés bi file ci Seneweb TV Ousmane Sonko déposé na ab pourvoi en cassation contre arrêt wu rek chambre d'accusation bu cour d'appel bu Ndakaaru bu déclaré irrecevable lu mu àndul ci renvoi wam bi ca kanamu chambre euh, criminelle ngir daal wàllum viol ak menace de mort si soxna si la di Adji Sarr laaj bi li laaj bi nag lu mu doonoon ba xam ndax saisir nu rek euh, cour suprême bi dana doon rendre possible programmation procès bi am déet koo xam ne ni daal ca Euh, dañoo jàpp ni pourvoi bi daal suspensiful la ni daal procès suite beauty bi euh, mënees nañu ko daal di programmer laata verdict haute juridiction bi waaye nag bu ñu sukkandikoo ba tey ci journal bi euh, maître des poursuites bi dafa dal di tànn xarandi njeexintalu pourvoi bi laata muy rek enrôler boobu les dossiers di option boo xamante ne nii mënees nañoo ne rek def na affaire avocat yu Ousmane Sonko yi ndaxte nag bu ñu sukkandikoo ci xalaatu les échos ñoom ñooñee mënees dinañu doon rek nekk ci logique durée loo boobule procédure Adji Sarr mi ngi woon ca diwaanu Medina Baye altine bi la ñu xalif bi la di Cheikh Mahi Niass moo ko fa dalal euh, bés bi nag euh, daal dinay xëyee di quartier boobule tukkim nemmeeku gën cee indi ay leeral euh, ba source boobule journal daal dinay ñu verrouillé même sax ñenn ñu jege xalif ba dañu leen daal di zappé ngir daal garder discrétion bi ba tey source bés bi daal di si nag yokk ne amul lenn lu particulier Adji Sarr dafa ñëwoon rek ànd ak papam ak ay sëram yu nga xamante ni dañoo jege benn benn rakk bu góoru Cheikh Mahi Niass a na nag taalibe bu mu doon si famille yu Baye Niass gi ba noppi sàkku ay ñaan di lu xalif bi nangu ba xam ndax bu mu jagleel Ousmane Sonko mu muy tuumal wàllum viol ak menace de mort source bés waxuñu fa benn yoon boobule mbir si seen gise gi xalif bi deful daal lu dul ñaanal Adji Sarr ba noppi rek jox ko ay conseil léegi nag bu dee Adji Sarr ki ay jege ñaaleem dañu caa gis solo retiré ab plainte ñoom la engagé. Seneweb daal dina yëg génnub àdduna maître Ousmane Seye di ab avocat bu siiw lool ba nga xamante ne ni impliqué na si mbir yu rëy yu bëri lool ba noppi bindu ci barreau Sénégal léegi euh, depuis atum 1985 bu yàggul dara sax bokk na ci conseil yu Sitor Ndour yi ancien directeur du centre des œuvres universitaires bu UCAD euh, bu ñu inculpé ngir wàllum viol bu weesoo nag rob bu avocat bi maître Ousmane Seye euh, nekkoon na tamit ab homme politique leader France républicain parti membre coalition Benno Bokk Yaakaar mu impliqué ci mbirum mandi ba noppi di dawal tax ñu présenté ko procureur de la république après le tribunal de Ndakaaru Mouhamadou Papis Diaw mujjee nañu ko rek bay bàyyi bàyyim dëgganeku bi di ñaari yoon nga xamante ne ni mu ngi am bàyyim dëgganeku taskatu xabaaru télévision Futurs Médias bi nag dinañu ko àtte prochainement kile di Papis Diaw policier yu commissariat bu jaxaay ñoo ko tegoon loxo ak ju mu bële ca gannaaw di koy toppee mandi ba noppi di dawal blessure involontaire ak mise en danger de la vie d'autrui boobee nag euh, bu ëttu Papis jaw ba dal di mbëkkoon reprendre na conscience euh, waaye nag tànk bu damm ñaari damm damm la ci dal di jëlee jot nañu ko sax opéré bu ñu sukkandikoo ci suñu source euh, ci fàttali taskatu xabaar bi la di Mouhamadou Papis Diaw defeere won nañu ko fi sax ngir mbir yi ni mel weeru décembre la woon daa mbëkkoon benn soxna sa nga xamante ni dafa wanoon lor ba noppi dal di daw ay ndawal commissaire Thioub bu police bu jaxaay dégg ko loxo ba noppi defeere ko Papis Diaw dañu ko mujjee libéré daanaka benn ay bés euh, ba leaderu gëm sa bopp bi la di Bougane euh, Bougane Gueye Dany euh, di defee ab alerte ci ab supposé scandale bu impliqué ministre des transports gi la di Mansour Faye loolee nag du leen lu dul daal ab détournement wu 98 milliards wa maanaam juróom-ñeent fukk ak juróom-ñetti milliards ci suñuy koppar ya ñu àbb ci turu ba rek Sénégal ba noppi confié ko benn privé ngir nag gën ca indi ay leeral patron groupe des médias bi dina janook presse gi ni ki tey mars bu 17h jotee ila juróomi waxtu ci ngoon euh, Bougane Gueye Dany nag fas yéene na tamit aborder wàllum violation règle démocratique yu Macky Sall di def euh, ñu xamle ko ci seen benn communiqué wu euh, parti wam ba nga xamante ne ni moom lañ jot a xaatim daal di koy biral mu amal tukki ba nemmeeku file ci Sénégal njiital assemblée nationale bu Québec Nathalie Roy daal dinay gisee ak Amin parlementaire groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar di tamit maire ñibbi ni ki tey jële ci alxames gi la ñu ci suba naka noonu nag Nathalie Roy daal dinay fësalal soutien wam député sénégalaise bi nga xamante dafa victime rek doon victime ci wàllum violence benn fan ci weeru décembre atum ci ba ñuy voté budget wu ministère sax yóbbu woon eh, ci ab établissement hospitalier eh, ba nga xamante ne ni ñoo ko doon topp ba mu am tan ba delluwaat ca këram. tàggat yaram gannaaw ba CNG validé nag euh, recours am bi ni ki démb ci àllarba gi Sa Thiès nag yëkki na kàddoom yu njëkk jox nañu ma sama victoire lu baax la ñëpp gis nañu ne daal man maa daan sama adversaire bi amul lenn lañu ñu yokk mu xamle ko moom Sa Thiès gannaaw loolee lay ñaawlu nag incident ya ñu ne daal nemmeeku nañu ko ci arène nationale bi ne kenn ko sinéwul daal lu am niki dibeer waaye nag nañu wax tamit ne daal bu dee arbitrage bi dafa eh, dafa irréprochable woon euh, du ñu doon assister scène de violence yi waaye nag Eh, xam nañu ne daal njumte ak nit ñoom ñoo ànd te nag nangu nañoo rek wéyandi xeex bi même bu dee nag xamoon nañu ne ñoom ñoo gañe woon eh, après nag toppandi nañu procédure recours bi te nag joxaat nañu eh, suñu victoire Sa Thiès daal dinay woo tamit mbër yeeg reporter yi ngir ñu gën a daal lucide ak fair play ngir dimbale waaye rek ni ngir dimbale tamit waaye itam leeral lanterne amateur yi si mbirum litige si rek bu litige amee ci yenn combat yi yaakaar naa ni nag faw ñu jàng di Ah, mbir yi nañuy ah, demee bu ñu gisee ni daal am na mbër mu daan nañu ko daal di ñemee wax waaye am na daal ñu ñemewul a wax dëgg ngir rek ragal ñu jam leen baat ah, ba tax na daal maa ngi ciy interpellé presse bi CNG it si beneen wet wi dafa war a daal di mën a def ay caméra de surveillance ci enceinte bi ngir dal arbitrer différent yi si place bi dañu war a nag instauré VAR ndaxte day participer ci xeex violence gu ñuy nemmeeku ci arène gi li ni mel la Sa wekki gannaaw bañ ko joxee li nga xamante ne ni moo di ndam ci kaw rëg-rëg mu ngoog xibaar ya sax foofee la jaaree buur dig leen daje ba ëllëg ak jàmm file ci Seneweb TV